nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjjana rek nag waaw <laughs> bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn sirru guddu fan mi ngi ci biir wa kaana sirru latif mi ngi ci biir wa kaana sirru ñuy wut nguuru àdduna yi sax mi ngi ci biir wa kaana waxtu ma nguuru yàlla ndax ñaareelu bayit bi kun yaa wali yaa qadir yaa nasir lil muminina innaka al hadi al basir julit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ay topp wa Darou Salam Vision si njëriñ yi nga xam ne moom la ñuy indi kon tey ñu indi leen ñaari njëriñ si ñaari bayit si xasida gi di wakkaan xaqal xasida dugu sëriñ Tuubaa def ngir jullit yëpp ay njariñ yoo xamne ay njariñ xewul la waaye ay njariñ tamit karange la yu yomba def kon ñu fonk ko bu baaxa baax te diko ko partage ak mbokki talib yëpp yëpp ngir ñëpp mën ci jarñu la maximum de personnes di leen ñaan laata vidéo bi tàmbale rek ngeen abonné te lepp lu ngeen mën ci yaatal liggéey bi tamit ngeen def ko ngir jëmale ci dëgg ñoo ngi jégalu bu baax ñu bàyyi leen ngeen teewlu wasalaamaaleykum wa rahmatullah muy wa kaana xaqan alaynaa nasru muminin ku tedd ki waxoon na ci gànnaar am na ñu ne sax njaareem la ko waxe mu ne lu ma am fii ci xasida gi laa ko lu ma am ëllëg it ci xasida gi kon xasida gu jar a jàng ndax li ci sëriñ bi dëxëñ bare na lool lool mag ñi wax nañ dëxëñ na ci siru ixlaas siru xasbal mooy xasbunallahu ni'mal wakil siru mokkal alquran mi ngi ci biir wakaana xaqan siru xasida goo tiim mokkal ko taxam li ci ne mi ngi ci biir wakaana xaqan siru gudd fan mi ngi ci biir wakaana xaqan siru latif mi ngi ci biir wakaana xaqan sirru ñuy wut nguuru àdduna yi sax mi ngi ci biir wakkaana xaqan waxtuma nguuru yàlla ndax ñaareelu bayit bi kun yaa wali yaa qadiru yaa nasir lil muminina innaka alhaadi albasir wax nañ ku koy jàng guddi di ko baamte juróom-ñaar fukki yoon di teel yegg sa borom te it xam sa bopp dafa neex sirru istijaaba mi ngi ci biir xasida yi ndax xasida gi kanam ku ne te saxal ko si boo nga xam looy génn ci làmmiñ ndax loo wax suñu borom sirru istiqaama mi ngi ci biir xasida gi te loolu rek ay diine nag moo di jub ak yeneen ak yeneen xasida bu nga xamante ni mag ñi di wax régulateur moom la ndax lu taalibe durus durus war na ci boole ba a xàqam wàcc ba mu lépp lu manqué daf koy yéeg ba mu toll bokk na ci mbuutu xasida gi weer su teeroo mu soogaa feeñ nga koy xool di wax mahabala iyu maham radio rida tanqaru li axraji di ko wax ay yoon ba bu weer woowu di so suñ borom bi ci jël sa bakkan suñ borom bi dan ci musal ci musiba balaa yuy wàcc ci weer woowu te soo seetloo weer ba mu dee doo ci mooy yàlla genn yoon kon xasida gu jar a jàng la mbokki Sénégal ak li ko wër jege si leen nii ngeen jox ma nopp yu baax yi ma xibaar leen ak Serigne Cheikh Tawfekh dikk na ngir tàggale leen ak seen jafe-jafe mbokk mi bu dee dangaa bëgg seet si am na ay jafe wala dee wala nga bëgg a seet sa wàllum liggéey dangaa yor place baa nga sañ ci place bu bees baa nga bëgg tukki wala ki ngay bëgganteel te am yéene sa yëg mbokk bu dee dangaa bëgg a xam say sarax jokkool ak Serigne Cheikh Tawfekh foo mën di nekk moo xam Sénégal nga nekk wala bitum réew toogal fi nga toog nga woo ko si numéro téléphone am bii Serigne yëmul foofu indil na leen lu neex garab gu baax baax la leen serigne cheikh tawfiq indi garab go xamne da fay fajj ndoxum siti hémorroïde ak ballonnement ak ñak lek bu fekke da ngay séré jëlal garab gi mom mo ci mbokk mi yemuñu fofu bu fekke da nga néew doole si sa walu sëy jëlal garab gi katan gu ma sëkk la lay serigne cheikh tawfiq yemul fofu indi na leen sekkar jaaro waaw jaaro bu yéme jaaro bo xamne ci turu yàlla la ko liggéey dawal sété serigne cheikh tawfiq mu jox la ci jaaro bis boko defé do ko rëccu ndax da nga ubbe ku sa walu bayre nit ñi dinañ la sopp lool da nga gis avancement ci sa walu liggéey ak sak yokku ak yeneeni mbir yo xamne serigne cheikh tawfeex na ko ci sekkire jaarom bi daw leen ngeen seeti Serigne Cheikh tawfeex baa ngeen woo ko ci numéro téléphone am defal 70 733 32 32 baa nga def 75 019 47 32